asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci wenn waxtaan wu gàtt rek jëm ci diine ji ñu bokk ak réew mi ñu bokk valeur yi ñu bokk tey nag ñu fas yéene laante biir ak yéen ci loo xam ne lii suñu bopp lañ ciy tàmbalee mooy di fàttali ni dafa am benn buur bu ñu bind bim ñu bindee tamit dafa am lu taxoon mu binduñu ak ku taxoon nu bind ñu wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni yàlla day nee na moom bim ñuy bind boppam moo taxoon ñu bind ñu na bim ñu bindee ngir boppam it ngir ñu jaamu ko la mu yónni ci ñun ay yonent ni mu yónnee woon ci ñeneen ay yonent lu jiitu rëdd wenn yoon woo xam ne wii moom la tudde siraatal mustaqim nga xam ni danga naan a ni bee amul beneen jubluwaay bu ko gën a gàtt nga xam ni suñu boroom moomu dafa yaatu yaatu ci wet gu nekk ci wàllu yërmandeem ak i xéewalam ak mbaaxam ak kàttanam ak yeneeni melokaan nga xam ni kon la fi doon wax naan séentu asamaan jarul buuxante jëm ci yàlla rek su fekkee ne yàlla tax ay jullit ñoom duñ ca buuxante beneen bindeef sax mu mën a doon su dee yàlla leen boole duñu buuxante au contraire ku ci ne da ngay yaakaar ne sama jëmm jii day jëmmi kee moo ko ci gën a yey kee day li ma yéene sama bopp ci yàlla moom laa ko su ñu demee nag ba nga xam ni loolu moom jur na leneen lu dul loolu nga xam ni ab buuxante lay doon ab conconte lay doon sutante lay doon rawante lay doon jongante lay doon su boobaa danga naan bakkan dugg na ci danga naan bakkan dugg na ci danga naan seytaane dugal na ca loxoom la xam ne nag moo daloon ñeneen lu jiitu ñooña loola dalay dal di dal ndax am na wenn xeet ay xeet yoo xam ne yii jiitu woon nañ ñu fi suñu boroom di wax ci ñoom seen diggante la nga xam ni moo ca xew ci wàllu rawante xeebante la nga xam ni moom lañ daan jëflante loola suñ ca tàbbee dangay jàpp nekkoon la daloon ñooña dal nañu tey jii de soo xoolee àddina ñi nga xam ne ñoom laa ci sañ tudd mooy jullit ñi wàllu wee da nga fay dis ay chiit fee nga dégg ñu naan sunnit fële nga dégg ñu naan wahabit soo dikkee ci suñu réew mi tariqa ngay wax du jeex du xaaj du jeex du xaaj kenn ku ci nekk di tëgg sa përëg ni ko alquran doon waxe rek wa qaalat alyahudu wa nasaara nahnu abnaaullahi wa ahibbaahu wa qaalat alyahuudu laysat alnasaara ala shey wa qaalat alnasaara laysat alyahuudu ala shey wa hum yatluuna alkitaaba kazalika qaala allazina laa yaclamuuna misla qawlihim fallahu yaxkumu baynahum yowma alqiyaamati fi ma kaanu fihi yaxtalifuun mu ne ñaari xeet yooyu ay yahuut ak nasaraan nee na kenn ku ci nekk yaa ngi tëgg sa bërëg naan ñun dey ñun ñooy doomi yàlla yi ñooy ay soppeem ñi naan ñee nekkuñ ca ñële naan ña ca des nekkuñ ca dara te nga xam de alquran le ay seeni téere leeraloon na leen ko lu jiitu seeni yonent waxoon leen lu leer nañ mu ne wax yooyu ñuy wax moog waxi ña jiitu woon rek ñoo dellu siwaat nee na yàlla dana leen àtte bés pénc ma ba nga kenn ku ci nekk xam loola nga doon wax ci kaw wuute ga lu ciy sa cër mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa aqim wajhaka lid diini xanifan fitratallahi allati fatara naasi alayha laa tabdila li xalqillaahi zalika diinul qayim walakina aksara annaasi laa yaalamuun muniibiina ilayhi wattaquuhu wa aqimu salaata wala takunuu min almushrikiina min allazina farraquu diinahum wa kaanuu shiyan kullu xizbin bima ladayhim farixuun wa anna haza siraatii mustaqiman fattabicuhu wala tattabicu subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum waseekum bihi laallakum tattaquun loolu nga xam ni moom la suñu borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee ko jë jëral wenn yoon xaniif dëgg mënal sa jëmm ci wenn yoon mu yoonu yoonu yoonu nga xam ni moom la Ibrahima alayhi salaatu wasalaam nekkoon nee na loolu day ci la yàlla bind doomu aadama donte nag mën na tarxiis dem ci leneen nee na loolu mooy diine ju jub ja xocc nee na waaye ñu bare ci nit ñi xamuñu loolu mu ne yonent bi sallallahu wa sallam wax leen ne waxal ne nañu delluwaat ci yàlla ragal ko teet ko te ñu julli taxawal julli nee na bu leen mel na ñi nga xam ne ay bokkaalekat lañu woon lu jiitu ñi nga xam ne ñii kat dañoo séddale woon seen diine mu nekk ay kuréel kenn ku ci nekk di tëggoo ak di puukare woo la nga xam ni moom nga yor mu ne ko yoon wi nga xam ni moo jëm si ci man daal wenn yoon la topp leen ko te bu leen jël ñal yi su ngeen ko defee nee dana leen xaajale dana leen féewale loolu la suñu boroom wax yoon bi sallallahu alayhi yi ñun lan la ñu nekk joŋante werante bañante kenn ku ci nekk boo tëraloon moroomam mu rendi ko fan la dëgg nekk ku ciy wax ba daaneel nga yaakaar ne kii li mu yor dara tiimu ko dara tiimu ko dañoo amul fit rek waaye kon ñu jël sax daraja yonent a ankay mi ngi am daraja yonent yeeg yàlla suñu borom faf tabaraka wa sax da nga gis ku ko ne get caarasam ba jël doomu aadama teg fa ci lan buuxante rawante jongante ëpplente gën a rëylente te loolu lépp amul kenn ku la ci mën a jox firnde ju wér bés bu nekk ñuy gën di soriyaantoo ci xol yi li li suñu borom doon wax taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatte nga xam ni xol yi ci zaahir rek la nuru koo ci gis mu akolaat moroom ma koo ci gis nga gis mu tàpp moroom ma koo ci gis nga gis mu nuyoo moroom ma ñaari loxo fekk la mu ëmb ca xol ba alayaasu billah mbokk yi nañu delluwaat di jaamu benn buur bëgg benn buur ànd ci jenn diine joo xam ne fraternité la woote bëggante la boo woote yéenente jàmm la woote kenn ku ci nekk di xool sa moroom bët bi ngay xool sa bopp wala bu ko gën loolu mooy neexal suñu àddina loolu mooy rafetal suñu ànd loolu mooy barkeel suñuy jëf waaye leneen lu ñu mën a def lu dul loolu dañuy wàcc yoon wa te nag mel na na tey jii wecc yoon wi bari na yaatu na topp ñal yi mooy subul yi suñu borom doon wax ci alquran bari nañu ko jaar sama kalaas gi ñu ci bari fi mu ne nii ci lëndëm lañu nekk goo xam ne gii tar na te la ca gën a doy waar mooy yëguñu sax ne ñu ngi ci lëndëm googu di fay di dem te bu ñu watul bu ñu dajeeg seen borom ëllëg mbetteel lañ fay fekk mbetteel di waa ji wax naan bu ñu bu bu bu pënd bi wuree yuux jib fuñ ko foogewul bu ko defee daal loolu mënuñu ko woon a bañ a dolli ci waxtaan wi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu